Elite Santé, EBS et Bébé Taille vous offrent votre émission Café Week-end. mbokk yi xarit yi salaamaaleykum nuyu nañ leen ziar leen bu baax a baax ñu am mbégte kontaan te ñëw yéen seen euh, première chaîne de la banlieue di IM télé international média TV. tey nag ñu bu baax a baax ñëw yéen seen émission café weekend ndaxte comme ni ngeen ko xam naa ne waxtu wi nga xamante ne maa ngi a ngi teg seen kaasu café di ko naan ba tax na maa ngi leen nuyu di leen yi nga xamante ni saa su nekk dañuy topp dañuy topp ci waxtu wi ba tax na ma dugg fi nga xamante ne moom mooy biir Paris nuyu ki nga xamante ne moom mooy euh, Delia Ly nuy également ki nga xamante ne moom mooy euh, monsieur Ba moo génn Paris dugg fi nga xamante ne moom mooy biir euh, Belgique ki nga xamante ne moom mooy Dieynaba Ly ak euh, borom këram waaye duggaat fi nga xamante ne moom mooy biir États-Unis nuyu ki nga xamante ne moom mooy sama jigéen moom aussi tamit di rafet lu baax a baax émission bi muy Aji Binta Diallo moo koy nuyu di ko ziar bu baax a baax waaye duggaat fi nga xamante ne également moom mooy biir Brésil ah nuyu sama sama sama rakk jooju ñu koy wax Adama Gueye ndaxte ñoom dañuy topp émission bi mbokkee xarit yi comme ni ngeen ko xamee nag café weekend lañ wax ba tax na tey macha allah tey dañoo dugg si biir Kër Massar ndaxte tey dañoo seet ki nga xamante ni tey dañuy am mbégte bu baax a baax toog ak moom ndaxte xam nga doomu pikin dañ leen xam ci am jom doomu pikin dañ leen xam ci bëgg liggéey ndaxte euh, ki nga xamante ni tey moom lañ dalal ci café weekend nekk nag ki nga xamante ni damay wax ni kenn doot ko présenté si Sénégal ndaxte bëri na li xamante ni def na ko fi ba na tey bokk na ci li ñuy waxtaan ak moom dina ñëw moom ci wàllu social ndaxte moom bu ñu waxee turam faaw ñu teg ci social mais dina waxtaan ak moom tey ci li nga xamante ne xëy na peut-être sax moom xëy na xaaru koon mooy dina dugg ak moom tey ci wàllu politique mais dina ñëw nag ci li nga xamante ne tey moom mooy nekk si deuxième partie bi muy làmb ndaxte ku ne Ibrahima El Hadji Ibrahima Diop Kajoor production di nga ne làmb tey moom lañ dalal ci café weekend ni ñuy def rek mbokk yi xarit yi comme ni ngeen ko xame damay bàyyi sama gars yi ñu nuyoo su ko defee ñu dugg ci waxtaan bi ndaxte café weekend tey bi ñu fas ne def bu spécial lay doon ndaxte dina bëri ci li nga xamante ni tey dinañ ko waxtaan ak moom dina bari ci ay leeral yi nga xamante ni tey sénégalais dinañ ko dinañ ko xam ci moom li may def rek mooy damay bàyyi élage Hadj ah mu toog internautes yi su defee mbokk yi après euh, véro ñëw rek ñu soog a ñëw si invité bi El Hadj maa euh, daab maa ngi lay fay maa ngi wax ni maa ngi nuyu chers internautes yi nga xamante ni ñooy suivre IMTD International Média TV su waxtu bi jotee rawatina Café Weekend mm-hmm. euh, ñu ci taataan lu bëree bëree bëri di ci dalal ndaanaan yi nga xamante ni ñoo nekk ci réew mi tey nag ñu ñëw fii ci Kër Massar euh, dalal fi El Hadj Ibrahima euh, Diop mu nekk koo xamante ni tey Euh, dafa am benn facette boo xamante ni xamee woon nañ ko ko muy wàllu làmb comme ni ñu ko waxee léegi euh, Kajoor production euh, ñu gis ne ay làmb yu gën a mag fii Sénégal moom moo ko taxawal te am na làmb yu ëpp coow sax fi mu toll nii mhm. Sénégalais yëpp a ko doon laaj mhm. ci ay loxoom la nekk mhm. mu am benn facette bu mu génn ñu commencé mel ni dañ ko commencé gis ci làng politique bi mu gane si fi aussi tamit social bi ñu gis li mu def ci koor gi ak semaine bii ñu génn bëri na lool loolu nag moo tax tey ñu dalal ko fii ci café bi kenn di ko profito di ko nuyu di ko masawu coono. merci beaucoup mbokk yi xarit ah, mu nekkoon euh, ki nga xamante ne moom mooy El Hadj waaye ñuy masaw bu baax a baax suñu jigéen ji nga xamante ni ah saa su nekk day ànd ak ñun ci café bi kenn muy Karla ñu koy nuyu di ko ziar bu baax a baax. Euh, di nuyu également ki nga xamante ne moom mooy moo ah, Modou Mbaye moom mi nga xamante ne moom moo coordonné émission moom aussi ñu koy nuyu di ko ziar bu baax a rek Véro moom aussi mu nuyoo ah su ko defee nag ñu dugg ci waxtaan Véro maa ngi lay nuyu. Dame maa lay fay di nuyu ami internet yi ñuy seetaan saa su nekk rek ci IM International Média comme ni ñu koy defee saa su nekk rek tey ñu nekkaat fi nga xamante ne moom moo di Kër Massar. Euh, seet ci koo xamante ne ndaanaan la ci biir ndaanaan yi comme ni ngeen ko waxee mhm. mu yee El Hadj Ibrahima Diop ñu koy nuyu bu baax a baax di ko dalal ak jàmm ci biir émission bi di wax ne daam ba ci kanam incha allah ñu seq ak moom li nga xamante ne moom moo di euh, laaj ab tontu mhm. jërëjëf mbokkee xarit xam naa dinaa ko tooñ tuuti ndaxte moom ah, sama équipe nawetaan moom moo gañee moom moo gañee équipe muy muy muy jamono ah <laughs> xam nga Cité Police moom moo gañee moom moo gañee moom moo gañee jamono am naa ci kanam tuuti dinañ ci ñëw ndaxte moom macha allah bëri na ci wàllu bi nga xamante ne da ciy yëngu eh, dañ koy bàyyi rek mu nuyoog eh, ñi nga xamante ne ñoom ñooy internautes yi vraiment eh, présent am nañ mbégte bu baax a baax si dalal bi ñu dala tey fii ci Café Weekend. salaamaaleykum kilifa gi maa ngi lay nuyu di la ziar di la jox sa waay di nuyu waa IM Télé di leen nuyu di leen ziar bu baax a baax di nuyu seen caméraman yi di nuyu Modou Mbaye ñaata si ñoom ñëpp maa ngi nuyu bu baax. di nuyu samay soxna ak samay doom maa leen nuyu bu baax di leen jox seen wàccuwaay di nuyu waa Kër Massar ak waa Pikine di nuyu sama sëriñ sëñ Mourtalaam sëñ Modou Boussa Dieng di suma papa suma xarit ak soxnaam soxna Abi Mbacke maa ngi koy nuyu bu baax a baax di leen jox seen wàccuwaay. merci beaucoup mbokkee xarit yi xam naa ba ñoo dugg ci waxtaan bi rek damay nuyu waa Pikine ndaxte mënuma ñàkk ba ñu nuyu waa Pikine Cité Police ak euh, moom mi nga xamante ni moom mooy euh, président jamono xam nga faw ma xaw ko yëngal ndaxte dama koo xaw a jekku nag xam nga faw ma xaw ko yëngal ma leen nuyu bu baax a ndaxte moom yàlla dafa def mu mu muy présider équipe bi nga xamante ni bokk na ci équipe bu gën a discipliné mën nañu wax ci Pikine ndaxte jamono bokk na ci équipe yi nga xamante ni bëriwul lu leen dégg ci coow Euh, moom aussi tamit mu am liggéey bu am rafet boo xamante ni jot na ko def ci neewtaanu Pikine vraiment euh, foo toogoon ci Pikine rek dangay ngay dégg turam yàlla def na nag yàlla def na nag tey lañ mës a toog ma moom euh, ñu am mbégte bu baax a baax élage ñuy def rek mooy xam naa dañuy bàyyi rek ñu dugg ci waxtaan bi waaw merci Dame di rafetlu nuyoo bi aussi comme ni ko waxee di wax Modou Mbaye ñu ngi koy gërëm bu baax moom mi nga xamante ni moo coordonné émission bi yëpp ba ñu mën a jot tey ci El Hadj Ibrahim Ibrahim maa ngi lay nuyu bu baax di la ziar. maa ngi lay fay ku baax di ziar euh, di wax ni question bi ñuy njëkkee fi mu toll nii moom. Hmm. lan moo waral fi mu toll nii social yeeg langue politique bi nga dugg ba xàmmeetuñu moom cap bi nga daan sol fi mu toll nii kenn xàmmeetu la léegi moom politicien nga gën a jege ko promoteur moom. bon du politicien sax xam nga social bi moom da am lu ñu juddoo ci benn gox. ñu juddu ci benn famille boo xamante ni tey sumay maam la commencé wàcc ci sumay papa bi ma màggee maam lu ma gis ñu di ko doxe mën naa ni jàkk bi ñu dëkk cité Icotaf 2 bon dama judd rek fekk gis sama maam chaque jour muy ñu yóbbu ndogu foofu te bon ñun loolu lañu gisoon ci lu fees mais bi mu décédé nag ci la ñu gis ci la ñu xam lu bëree bëree bëri bëri bari ak yeneen ak yeneen daanañu gis daana ko def teg si am na leen loom daanaa ko bàyyi xel tabaski da daan jot dama daan gis da daan indi xar yu bari mais bu ma xëyee la matin su ma gisee gisuma benn xar xama rek comme xar ma ne ko maam ana xar yi mu ne ma soo yoon nekku ci looy lijjanti fu xar yi dugg rek bu guddi jotee loo koy jël di ko joxe bon ñu daan toog di waxtaan nag maak moom lu bëri mu may xamal ne ma bu nit ñi di wut alal da ngay dem uti nit ñi soo amee nit ñi loo am après ci nit ñi nga koy defaat te loo am tamit bokk ak nit ñi ñu daan toog mu ne ma soo yoree kopp ndox yow yaa ko moom yaa ko war a naan mais boo yoree siwo moo moo ko yàlla dafa la ko jox pour ak ay jaamam te mu yar ñu ci loolu ñu màgg ci loolu te ñu jàpp ne lu mënti ñëw ci suñu loxo rek lenn dong lañu gis ne moom lañ ci am liñ ci lekk mu rees ak liñ sol mais li des yëpp jaam suñu borom yee ko moom te ñuy ñaan nag lépp loo xam ne def nañ ko ci it yàlla buñ ci gis suñu bopp ndax yàlla kese moo tax ñu di ko def loolu moo waral. mais social mënuñu gis ëllëg mu nekk loo xamante ne danga koy weccoo politique est-ce que nekkul tur rek ci ut social pour ñu gis la ëllëg nga mën a taxaw ut benn mouvement boo xamante ni dina la gunge ci wàllu politique dooleel sa bopp. ñun nag bu ñu bu ñuy social yaakaar naa ni bi ñu ko dalee def ça des années. mais musuñu bëgg sax nit du ko fësal ndax Modou Mbaye mi am na ci bés fekk na ma di ko def mu di ko filmer mais jour boobu damaa dal ci kawam man après dama mujj dama rus parce que li ñuy def yàlla képp moo tax ñu di ko def tey bu ñu demee ba ni dañuy wàcc ci langue politique bi du ñun du suñu image ñun du ñun suñu bopp du question que ñun liñ ci bëgg parce que tey damay wax ne man yàlla deseelatuma man maa desal suñu borom ndax teraanga bu muy defal jullit rek alhamdulilah defal na ma ko ndax su ma xoolee si sama at fi ma toll yàlla suturaal ma ma mën a am bu mën a dugal sama njaboot mën a dem ziare ku tedd gi kon jàpp naa li de sama dund rek loo leen lu ma dundaat bénéfice la ndax mën naan suñu borom matale na ak man li ci ëpp tey bu la suñu borom dimbalee sa image dem sa tur dem amaana peut-être fu sa jëmm àggagul jàkkaarloo nga ak nit kër. am na lu ko metti mën na yuuxu mais bu yuuxoo kenn du ko dégg mais yow mi nga xamante ne boo yuuxoo ñu dégg sa yuuxu kon boo taxawee croiser les bras nga seetaan rek kon am nga toor ci li ko dal kon kooku yow yaa war a yuuxu jël yuuxoom yóbbaaleel ko ko su ko defee ñu mën a dégg ay yuuxoom tamit ñu gis ni ñuy considéré jeunesse su banlieue bi ni ñu leen di téye ñun ñu am fu ñu jaar ñu gis ko loolu metti ñu loolu tax ñu dugg ci tey jii ñu gis ne noonu ñu ci duggee nag tey war nañu mën a suñuy frères ak suñu sœurs yi pourquoi pas ñu am benn combat bu ñu mën a jël pour xeex ko pour ñoom mais nekkul ne lu ñuy xeex pour intérêt personnel wala pour suñu. kon engagement politique bi nga jël jeunesse bi nga bëgg a dimbali. waaw mais noonu noo koy defee parti au pouvoir moo la yónni wala ci opposition bi nga bokk. non fii ma toll nii tembe mën naa ni parti au pouvoir yónniwu ma opposition yónniwu ma. waaye am naa sañ-sañu tey taxaw xeexal samay ndaw réew ba nga xamante ni tey ñi fi nekk nekk ndawal réew mi bu ñu déggee sama kàddu ci li may wax tey ji dinañ ci mën a bàyyi xel pour li nga xamante ni mooy ndawal réew mi ndax damay wax à chaque fois en tant que président Macky Sall moom amul problème mais problème maseur lenn la mooy entourage am ndax jàpp naa ni dëgg gi ñu ko war a wax dañ ko ko waxul ndax ñi ko wër ñëpp nga dem Pikine nga dem Kër Massar fépp ci banlieue bi ñam fa teg ñëpp li ñu koy gëmloo à chaque fois yaa moom banlieue bi yaa moom banlieue boobu su ko moom day gagné banlieue bi élection locale yi nan la fi def élection législative bi lan la fi def kon chaque jour dañ koy nax dañu ànd ak moom ci loo xamante ne tey ànd jaayante tàqali koo jëwante loolu la ñu ànd ak ñoom tey ñooñu nag nekk ci banlieue bi tey di utiliser doomu banlieue bi te ñooñu lañu jug pour dénoncer leen

te nit yooyu muy doole di leen jox ay marché nit ñooñ tey ñoo war a créer emploi mais dañ leen jox marché ñu ñëw ci koñ bi fekk benn bande copain toog am benn cinq cent mille benn million dem ci groupement famille jox leen benn cinq cent mille nga wal leen ginnaaw ñu séddoo ko ñooñu jàppale woo leen yaa ngi leen di lor. <laughs> léegi yow ban programme nga indi bu dee da nga bëgg a changer li fi nekk. programme ban la ban programme politique da am entreprise wala dafa am beneen plan boo teg. système boo gis day am organisation ban organisation nga indi pour changer li ngay wax gars yi ay dóorkat lañ. waaw programme bi ma indi tey jii ak système bi nga xamante ni man bi ma jàpp ne tey dafa gën ci ndaw ñi. tey am na ci loo xamante ni yàlla suñu borom def na ni ñun dund nañ ko. tey nit ki lu mu dundul rek mënu ko digal doomu aadama. duñ ko dund ba tëbuñu tëb rek yegg si fii ñu yegg si. ndax am na fu ñu jaar ba ñafe suñu àdduna ba yegg si fii te xaaruñu état xaaruñu ko nekk ci état ba yàlla tey moo ñu suturaal. te nag suturaal bi mu ñu suturaal nag tamit ay la yoon du suñu njàmbaar moo tax ñu yegg si fii te du suñu ngóor a ndimbalu borom bi kese la moo tax ñu yegg si fii tey loolu bokk na ci li tax tey ñu ne combat bi ñuy mën a mooy dinañu sensibiliser jeunes yi bi ci njëkk ñu conscient ci kenn waru leen jël di leen utiliser ci ay talpono kenn waru leen jël di leen utiliser ci ay nervi kenn waru leen a jël ci di leen utiliser pour ñuy toj ay bus ndax tey jii nit ku ci nekk rek war nga mën a am sa jom yi ak sa fulay bopp ba li nga nekk tey nga ñafe ci sa live ba li nga xamante ne tey moom nga bëgg ci sa avenir ba nga mën a accéder ci kaw tey bokk na tamit ci li nga xamante ne tey am nañu ay projet yoo xamante ne tey ñoo ngi koy ñu ñu teg yoo xamante ne tey gëm nañ ne bu ci ndaw ñi jàppee jaar ci yàlla mën na leen suturaal jàppale leen ci loolu. daam ma bàyyi leen moom ba ci ba ci kanam man moom am na question yu bëree bëri yu tàng yu ma ko war a ngi daw nag di génn mais bàyyi ma bàyyiwaat leen ci kanam. merci beaucoup yi comme ni ngeen ko xamee rek di leen fàtte rek yéen a seen émission Café Weekend ah, fii ci IM Télé TV. macha allah dégg euh, réponse yi nga xamante ni euh, président def na ko mu nekk loo xamante ni lu am am solo damay ñëw rek ci Véro moom mu ñëw ci question a bu baax a baax comme euh, ni ko Cissé waxee man moom damay dugg ci euh, parcours El Hadj euh, Ibrahima Diop lan mooy parcours am ba mu yegg si fu mu yegg si kan mooy El Hadj Ibrahima Diop. waaw loolu moom mën na am lu ci wax lu tuuti rek El Ibrahima Diop benn ndaw la bu juddoo Pikine yaroo fa màggee fa. jaar fi ndaw Pikine yi di jaar dem géej fooy xaw a xawoon a xawoon a ës tuuti waaw booy Pikine jàng du dugg école xaw a ës nangul jàng ñu génn ma yóbbu ma Pout ma defa fa bi ma demee foofu mën naa ni lu bari lu soppeeku ci man tey falaa ko amee ndax nga tool foo xamante ni gisoo papa gisoo yaay lañuy xëy di la yóbbu ci ay tool ngay bay xam nga loo xamante ni mosoo ko xam ci sa dund loolu yaakaar naa ni am na lu bari lu mu def ci man bi ma ñibbisiwaatee bon ñibbisi bi sax du woon ñibbisi man maa man maa daw damaa daw comme xale fàq ñibbisiwaat ñu wax sama yaay wax paa wax ma la ñibbiwuma su boobu bon dëgër na tamit lu ñu def lu dul ma sama maam tamit comme suma xarit la woon mu ne nañ ko jàngal métier. léegi ma dugg métier ci def électricien oto ma nekk foofu tamit gën a ës waaw ñun léeg-léeg au maa ngi nuy sax sama patron boobu ñu ma joxoon bàcc siis mu ngi ci suuf sax ñoo àndoon ma nekkoon koo xamante ni nekkoon ci garage ba ës lool paa bi dem ba nga xamante ni gis ne su ma bàyyee fii dañ koy kalaat chaque jour kalaame yi dafay bëri mu ne na bàyyi après ma bàyyi dem def soudeur métallique après nekk ci la bi may gën di dem nag après ci laay commencé am yenn conscience yi tey xam yu ne man mi tey war naa am ay responsabilité yu tegu sama kaw li ma war a gëm sama bopp nag am na loo xamante ni tey di xëy di xeex fii xuloo yooyu waratul nekk sama bopp mm-hmm. naa jéem a ñafe sama àdduna te xam ne bon mag ñi après dañuy dem après ñun ñoo fiy des mm-hmm. ci laa def soudeur métallique ba benn temps ma gis ne tey man comme man maay taaw affaire yi xaw naa yàgg te metti ma bàyyi soudeur bi dem defi bijouterie yi jóge fa ma dem defi ménèbre maçon jóge ménèbre maçon dem am na benn société bu ñuy wax Sivop Sénégal mu jóge fa dem di liggéey foofu jóge fa après def commerce et ibbi benn magasin cosmétique nekk fa dem ba benn moment ma jóge fa dem zone France di fa liggéey après durant boobu ma nekk zone France nag ci laa créé ay ployé nekk ci charcuteries, charcuterie jël ay nit jox leen fa di di xëy France ñu dem dem dem ba gis ne charcuterie bi commencé na sooxe ma jël ko jaay ko yàlla def ma jóge fi tukki mu tukkee ma xool gis affaire yi metti lool ma xam ne fii du ay lavage ci ci di ci di ci gis ne du ma la ma suñu borom ba ma dugg ci promoteur immobilier yàlla suñu borom nag fa la ñëwee ki ay mbiram daal di soppi affaire yi carrément ñu ñu mën ci gis suñu bopp parce que gis nañ ne boobu ambition bi ñu am ak gëm-gëm bi mooy maanaam dañu war a dimbali ay doomu aadama. Mm-hmm. te li ñu war a dimbali ay doomu aadama il faut que yàlla defal ñu xéewal parce que idée bi mu mës a am mooy man su ma yoree fukki dërëm pour man dama ko war a bokk ak nit ñi gëm-gëm boobu laa mës gëm ba bi ñuy gën a nekk xale sax damay toog samay copains man leen man de xaw ma kan mais man moom. dina am ci kër yu rafet dawal ci oto yu rafet am ci soxna yu rafet loolu laa leen daan wax te loolu nag yëfi doomi aadama la yàlla moo ñu ko jagleel waaw te bu ñu ko jagleele boo amee ngëm-ngëm bi nag da nga koy da ngay da ngay da nga da nga ko war a jëli ji gëm-gëm boobu moo ma indi tey fii jaar-jaar boobu daal suñu borom def na ni fa laa jaar yeneen yi nag dañ ciy def kon <laughs> macha allah muy biographie bu riche boo xamante ne képp koo xamante ne rek ndaw bu la déglu rek wag na mun a xoolaat boppam defaraat toogaayam hmm. ndax nee na yàlla moom euh, mayewul dafay aale te ku mu aal tamit am na leneen loo xamante ne teg na ko ci wetam foofu laay jaaree ñëw ci yow sànka ci question bi la Cissé posé da nga wax ne da da da nga ne nekkoo ci opposition waaye nekkoo tamit ci pouvoir te ñu gis ne sànka sa biir kàddu yaa ngi wax di wax wàllu Macky sàll est-ce que nekkul ne yow danga nga bëgg a dem bennoo moo tax ngay jox exemple ci Macky Sall. wala nga dem fa ba pare sax. du du question que da nga dem bennoo wala nga dem fa ba pare. xam nga olof dañuy ragal péete day xañ a wërsëg. Mhm. mais tey quoi qu'on lépp lu nit di mën a wax. Macky Sall liggéeyul kenn du ko wax mu ngi liggéey. bu baax sax te comme tey moom la fi yàlla teg tey boo amee benn objectif boo xamante ne ci lu jëm ci jeunesse bi. tey boo jegee état sa message dina mën a jàll mais boo jegewul état sa message pour mu jàll du yomb. non yow bu fekkee ne par exemple Macky moom moo yor réew mi mhm. moom moo war def ay jéego pour ndaw yi am ay xëy mhm. léegi defu ko est-ce que yow tamit boo jegewee état est-ce que loolu noonu dina mën a posi possible. tey man li may wax naan chaque jour tey bu ma bu yàlla defoon ma toog ak président. dina dégg loo xamante ne. kon toogagoo ak moom. non toogaguma ak moom tey su ma toogoon mais maa ngi toog ak ay ndawam. kon mun nan wax ne yow APR nga nekk kon. non nii nekkuma APR ndax awma carte APR ku nekk APR mooy ko am carte APR mais man awma carte APR nekkuma APR mais maa ngi toog ay ndawam ndax damay assumer mais tooguma toogaguma ak moom mais tey bés bu ñu toogee. man xam naa li ma war a wax ak moom te su boobaa li ma war a wax ak moom su ma ko waxee moom dina ko dégg te dina xam ne li ma ko wax loolu mooy réalité ndax tey jii maanaam ki ki ki ki la mën a jàppale mooy ki jege askan bi mhm. mais ki xam te ne mi ngi dund ak askan bi li metti ak fii metti lépp moom mu nga koy dund ndoog askan bi bokk la ki nga xamante ne tey dafa neex mu daw génn wan ginnaaw askan bi mhm. ba ñooñu noonu tey jii li ñu doon askan boobu jeunesse bi ñoo leen ko def tey jeunesse boobu bu ñu soxlaa seen buntu kër yi bu ñu demee ay garde corps lañ fay fekk mhm. ndax da nga am audience mais euh, pourtant lan moo tax ma malaakal mootu buy ñëw duñ ko laaj ndax am na audience wala garde corps duñ ko gis ba war ko mën a téye kon moom problème am bi mu am yëpp mooy comme li may waxaat mooy à la base entourage bi ñooñu ñooy problème bi tey da ngay gis nit day nekk fii mobiliser ay jeunes solal ma tisat defal ma lii nga jox ko cars ay 5000 francs ay 10 000 mu dem après yow nga ñëw xoola taal sa oto ne fees dem Almadies wala Mamel wala Fann Résidence pour ñu gis la sax problème lay doon mm-hmm. tey ñooñu bàyyi nga leen fekk benn situation boo xamante ni tey jii da nga gis ko bu tar mu bëgg ñoo gis la sax pour mu gis la lay doon ba pare nga ne jàppale président jàppale président sa bopp ngay jàppale ak sa mm-hmm. tey ñun nag li ñu am état joxuñu ko te ñoom li ñu am état moo leen ko jox mm-hmm. ñun dañu ñëw ñafe suñu laaj ba yegg si fii gisuñu état gisuñu ku nekk ci état tey bu ñu demee bay mën a toog ak ay ndawam parce que li ñuy liggéey la ñoom ñu gis ko ñu am ci ñun yaakaar moo tax ñu ñuy côtoyer di ñëw di waxtaan ak ñun di échanger ak ñun loolu moo ko waral. macha allah muy activité sociale bi nga xamante ne yaa ngi koy def fii au niveau de Kër Massar sa mun naa wax gis nañ ko te mu nekk loo xamante ne c'est à saluer euh, daam mm-hmm. macha allah kon ñu bàyyi la rek ci kanam tuuti ñu ñëwaat ci yeneen questions yi incha allah. man fi ma fi ma fi bëgg a ñëwee rek mooy euh, bon am naa mbégte parce que yàlla def na bi ma dalee tourné émission ba léegi maa ngi soog a toog koo xamante ne doom la mm-hmm. moo tax dama mbégte bu baax a baax lu tax tey émission bi def ko lan nga gisee Pikine ndaxte dañoo gis ni Pikine ba nii may wax yow mhm. avancé wul dara mhm. Pikine dara dox fa dara mhm. dara dox fa dara da nga da nga da nga da nga Pikine va mal waaw Pikine va mal vraiment <laughs> est-ce que est-ce que est-ce que est-ce que parce que tey yaa ngi yaa ngi wax léegi ne euh, bëgg président accompagner la pour li nga xamante ni moom nga bëgg def si ndaw ñi mu accompagner la ko mu accompagner la ba nga xamante ni loolu dina mën a sotti yow nan nga gisee tay responsable yi nga xamante ni peut-être président Macky Sall am na si ñoom confiance teg leen Pikine mhm. est-ce que le président doon xaar si ñoom def nañ ko. waaw loolu jàngoro boobu am Pikine moo am Kër Massar mhm. moom am fépp ci Sénégal jàngoro bi am Pikine mhm. moo am fépp ci Sénégal ndaw yi nga xamante ne moom la teg Pikine teg leen fii Kër Massar. ñoom amuñu considération ci jeunesse bi nekk foofu ci jeunesse bi nekk que ça soit Pikine que ça soit Kër Massar tey la preuve à ne Kër Massar tey bu sa booy xëy fajar di romb station bi sa yaram day daw. Mhm. man su may xëy di yóbbu sama doomi école sama yaram day daw nga xool dafay taxaw ci ay jeunes kenn xamul nu mu toll. Mhm. tey loolu noonu yëpp tey dalee leen ne eh, ndawam yooyu am nañ ci ay part de responsabilité nga dem tamit pikin boo xëyee matinal bi bunt mu fekk la bunt pikin station bi sa yaram day daw. Mhm. tey boo xoolee pikin mën naa ni jeunesse bi lu ci ëpp foofu seen i activité bu weesuwul làmb AS mm-hmm. Pikine football ñu dem fa concentré wu wala nawetaan wala nawetaan waaw ñu dem concentré wu mm-hmm. xam nga mm-hmm. da ngay dem benn gox fekk sa groupe booy toogandoo ci ay taatu garab xam nga léegi ñoo ngi xaar benn waajoo xamante ne tey Macky Sall moo ko fa yebal xam nga waa ji considération bi mu war a am ci ñoom du ko am lim moment bi mu leen di bi ñu koy gis mooy moment bi président soxlaa après bu président soxlawul ko kenn du la gis doo fa jaar amoo ci ñoom considération te loolu du loo xamante ne du lu rafet Mm-hmm. tey mooy li may wax rek chaque jour te bu ñu yëkkatee ay milliards jox la ko milliards du pour benn nit. Mm-hmm. million sax du pour benn nit. Mm-hmm. tey bu ma ñëwee fekk la nga toog ma yor marché deux milliards war naa ñoo ne la loo mën. laaj Véro lu mu mën laaj kii lu mu mën su fekkee yéen a bokk benn mën-mën ma boole leen accompagner leen ci loolu ngeen mën ngeen mën a réaliser dara pour teg dara. même donte kenn ku ci nekk bu gox ba nga nekk yaa ngi fay créer ay vingt personnes ci nga créer koy emploi sax baax na. tey am ñoom am nañu ay relation yoo xamante ne ndaw ñoom ñëpp que ça soit muy Kër Massar wala Pikine am nañu ay relation yoo xamante ne ay link yoo xamante ne tey société bu ñu woote ne jëlal ma sama fii vingt personnes wala dix personnes dañ leen di jël mhm. mais dafay mel ni benn instant dañ koy iñaane seen doomi gox dañuy bëgg sax ñu am ay soxla ñuy ñëw xamal li olof di wax naan rango ju baax loolu mooy siim cërëy buur mhm. te loolu dafa war a jeex ci réew mi nag mhm. ndax ñooñu loolu ñuy doon buñ ko amee nit ñun la ñun ñoo tax ñoom ñu am ko bu ñu mënee am mën-mënu ba bay tabax ay almadi ay kër ak ay kii ñun la. Mhm. kon ñun jeunesse bi après ñun ñoo war a amaat suñu fulay bopp ak suñu fayday bopp dootuñu nangu kenn ku ñuy utiliser ci lu ñàkk fayda ak ci lu ñàkk fay. mais mu am mais mu am loo xamante ni parce que dañuy gis ni en général ñi nga xamante ne ñoom ñooy def social. Mhm. soo xoolee ñoom ñooy gën a maîtriser mhm. fi ñu dëkk. parce que ñoom dinañ xam ki fa am. dinañ xam ki fa ñàkk. dinañ ki fa sonn. pourquoi yeen ñi nga xamanteni peut-être ci social ngeen njëkk ngeen njëkk commencer pourquoi télo leen ngeen intégrer ci politique parce que yeen yéen xam fay metti mhm. parce que yeen muy guddi di bëccëg yéen yéen ëpp ñi ñëw di leen solliciter yeen mhm. yéen gëna xam jangoro bi fimu nekk mhm. pourquoi ngeen yéex a intégré dugg ci politique pour fexe récupérer li nga xamante ne xëy na loolu ngeen waroon njëkkee fa ngeen waroon njëkkee lu tax loolu ngeen yéex ko def waaw xam nga tey di nga toog ba ci yàgg mbir nga nga nga nekk ci tey mën naa ni man lii ma dugg nii bu doon man kese kese kese seul. Mhm. wallahi azim du ma ci dugg kenn du ma xam mais ay nit classe Modou Mbaye geeg ñeneen ñu mënta ñàkk ñoom far force gëtal ma ne ma da ngay da ngay wàcc langue boo demee Pikine tamit noonu ren boo xoolee jamono yaakaar naa ku nekk dégg na ni mu demee. Mhm. daa gis nga ko. Mhm. te loolu ba fa amee ginnaaw yàlla ak yeneen bi sama jëmu ju xew ji la. te ay ndaw tamit topp ma ba ci cité police boobu nga dëkk. ñoom Demba Jama Demba Jama effectivement ñoom ñëpp mm-hmm. ñu may sollicité ci lu bëri. Mm-hmm. ñu dem ba xam ne kat ñun amatuñu droit toog seetaan il faut ñu génn parce que ñun lu ñu am man lu ma mënti am banlieue bee ma ko gënal. Mm-hmm. bi gars yi di tabax ay kër almadi <laughs> mën naa faa tabax kër comme ñoom. wallahi azim bi wax dama leen ci banlieue bi laa ñafe li ma ñafe ci banlieue bi laa ko amee. ci banlieue bi laay toog. ba keroog di jël ñu may yóbbu Touba. mais mais lan lan nga gis ni buñ ko defee wala boog taxawaay boo xam ne peut-être boo ko taxawee. Mhm. peut-être problème bu banlieue bi bu mënul bu mënul wàññeeku mhm. bu mënul jeexit mhm. dina mën a wàññeeku parce que dañuy gis ni génération bu mënti ñëw. dañuy gis ni feebar bi benn feebar lay doon mooy dañuy gis ni surtout sax si ndaw ñi. dañuy gis ni chaque kii bu ñëw état bu ñëw dañuy gis ni chômage bi. dafay bëri trop toujours ci banlieue bi lañ koy gën a gisee muy Kër Massar muy Pikine muy Guédiawaye dañuy gis ni chômage bi toujours day gën a bëri lan la ñu war a mën a def ak lan ngeen war a mën a teg loo xamante ni peut-être boo toogee président de la république boo si waxtaanee ak moom même bu jeexulee dina mën a wàññeeku. leen doo nga ko mën a ba bàyyi may bi ki ngay may jën chaque jour da nga koy jàngal lu ñuy nappee. Mhm. boo ko jàngalee lu ñuy nappee. Mhm. lu bër dina wàññeeku. Mhm. te ki ngay jël di ko may benn 1 million nga jàpp ne da nga ko dimbali wala dimbali woo ko da nga koy rey ndax bu la gisatul day jàpp ne loolu mooy kon loolu mooy vie bi dafa war dañ ko war di may chaque jour loolu loolu la war a jàpp bu ko amulee après ku romb mu ñaan la wala ku mën a dóor mu dóor la pour mën a régler ay kotam hmm. te fekk loolu mu nekkee yow yaa ko teg yow mi ko tàmmaloon loolu léegi bu fekkoon da nga koy may benn un million 1 million boobu tey boo xoolee mën na dal kooku départ poulailler la un million. Mhm. départ pour pour départ poulailler la. Mhm. tey nga dem ci groupement famille nga fekk ñu nekk ay deux cent trois cent nga yegg ci benn un million jox leen nga jàpp da leen jàppale jàppale woo leen financé woo leen. Mhm. soo leen wanee ginnaaw présidente bi day jóg ne un million lañ may mi ngi nii luy seen xalaat ñu ne dañ ko séddoo. séddoo après dañ koy séddoo ku nekk dox sa dox. tey bu ñu la joxee tey groupement famille nga bàyyi fa jox leen benn dix millions. loolu départ la. yooyu yëpp ñu def ko ci tey yooyu yu yu mel noonu tey moo tax président buy buy fal dafay xool ñi nga xamante ne tey jege nañu askan bi comme ni nga koy waxee. Mhm. ñoo ngi dund ak askan bi xam nañu fiy metti ci askan bi. Mhm. te chaque jour bu neexee bu naqaree ñoom ak askan bi la. Mhm. ñi nga xamante ne état defu li ñu am état joxu leen ko état defu ci ñoom dara ñoo ñafeel seen bopp ba yëg si fi ñuy yëg si. tey ñooñu bu leen état accompagner ci biir askan bi ñooñu lu ñu am dañ koy delloowaat ci askan bi bokkul ak ki nga xamante nag dafa xëexee rek état li mu am yëpp état jox ko. moom jàpp na ni loolu mooy kon ni loolu mooy woy mm-hmm. day jàpp ni loolu moomeelu boppam la te du moomeelam xam nga sa moomeelu bopp ak moomeelu askan bi boo ko jaawalee rek mm-hmm. da ngay da ngay dugg ci njuumte mm-hmm. te problème bi ma mooy ñi nekk ak moom ñi ci ëpp moomeelu askan bi la ñu jaawaleel ak seen moomeel. Mhm. moo tax jeunesse bi di gën a muy di gën a sonn muy gën a metti. Mhm. Mhm. kon euh, mbokkee xarit yi comme ni ngeen ko xamee looloo tax euh, jeunesse bi di gën a souffrir di gën a sonn fa la ñuy jaaree dem xooli page de pub ànd seeg suñu partenaires yi nga xamante ne saa su nekk ñoom ñooy accompagne ñu dem xool leen dellusiwaat si suñu plateau Café Weekend Optez pour la proximité. Bienvenue au groupe Elite Santé. Le groupe Élite Santé forme des infirmiers d'État, des sages-femmes d'État, des assistants infirmiers d'État, mais aussi le groupe Élite Santé forme des infirmiers bloc opératoire, techniciens de laboratoire, aides-soignants, assistants dentaires. Le groupe Elite forme aussi des délégués médicaux, vendeuses en pharmacie, secrétaires médicales. L'institut est doté de salles de travaux pratiques modernes. Des stages sont effectués dans les grands hôpitaux de Dakar avec une expérience de 10 ans. Ne laissez pas vos enfants sans formation. Accompagnez-les avec le groupe Elite. bétail. C'est du nouveau. Céréales infantiles, aliments lactés pour enfants, céréales 100% locales. Oui, riches en vitamines et en sels minéraux. Bébétail aide à renforcer les défenses naturelles de bébé. Comment mieux grandir C'est avec Bébétail. Bébétail am pharmacie et supermarché C'est bébé day am lex c'est bébé ce tu rafet bébé day taay mu doon céréales locales céréales locales yu bébé ko supermarché et pharmacie yi ku ci bëgg distribuer Bébétail suñu place mi ngi nekk Kër Massar ci wetu station Shell bi woo ci 33 896 58 90 wala 77 807 71 94 bébé taay sa bébé day taay ba noppi di garder le sourire. retour euh, sur le plateau Mboké xarit yi ah, ñuy jaajëfal bu baax a baax suñu partenaires yi nga xamante ni saa su nekk ñoom la ñuy ah, àndal ci émission bi di café weekend ah, muy élite euh, santé ak euh, ñi nga xamante ñoom ñooy Bébé bébétaay ak EBS ñu leen ñuy jaajëfal bu baax a baax c'est xam naa ñu ñëwaat rek après su ma la bàyyi ak euh, président rek après ñu ñëw nag dugg nag si li nga xam te moom mooy si deuxième part bi muy làmb. merci Dame ñu ngi jaajëfal suñu partenaires yi euh, président moom man dama gis nii mi ngi wër-wërloo daal mu jëm ci politique bokkul parti au pouvoir opposition waaye li muy wax nii moom opposition bee la gën a jege. Mm-hmm. waa président ndax sa xel moom dafa nekk ci organisation teg benn mouvement bokk pour soutenir président Macky Sall 2024. bon li ma mën a wax daal mooy ñun ñoo ngi suñu yoon di liggéey. di sensibiliser ndaw ñi di waxtaan ak ñoom fi nga xamante ne fa la ñu war a jaar ak fa la ñu la ñu war a teg seen tànk. Hmm. ñoo ngi ciy waxtaan ak ñoom ñoo ngi créer suñu mouvement. Hmm. mais newuñu la ne dañu koy créer pour soutenir Macky Sall newuñu la ne dañu koy créer pour dem ci opposition. mouvement yëpp ay dóorkat lañ nag président. waaw xam nga ah, loolu tëdd ay dóorkat lañ moom loolu moo yàq Sénégal. parce que li tax ma ni moo yàq Sénégal mooy. tey nit day créer mouvement. Mm-hmm. ñu ne dañuy dóor. dañu dem ba dóor boobu tey moom moo sax ci suñu xel yi mm-hmm. image boobu rek la ñuy gis. Mm-hmm. te li ñuy wax olof dafa wax na uude nu mu la gisee rek la lay ëwalee. te ay la yowoon ñun nag yàlla dafa def da ngeen xool ñi créer mouvement ñëpp nga xool fi ñu commencé ba fi ñu yegg si. am na ay organisation yu nekk seen ginnaaw. yu yëkkat seen i alal di leen jox di leen finance mais ñun nag yàlla dafa def tey li ñu nekk. amul benn organisation bu ne suñu ginnaaw du état du kenn ñun ñooy jël suñuy propre moyen di ko def di ko delloo ci askan bi kon yaakaar naa ne ku fekkee kooku day dóor mhm. la mu da koy denc est-ce que da nga bëgg a mbubboo askan bi pour ñu dégg la parce que élection présidentielle ginnaaw suba la nag président kii El Hadj El Hadj Ibrahima. bon ñun ñun ginnaaw suba la nga ñëw da ngay créer mouvement. ñun ñun jàpp nañ ne li ñuy li ñuy li ñuy li ñuy xeex xooluñu ci élection présidentielle ñun xooluñu ci loo xamante ne tey Euh, pour ki war a nekk président ak ki warul nekk président. Mhm. ñun ñun lu am continuité la ñuy xool loo xamante pour intérêt jeunesse bi lay doon. Mhm. loo xamante ne tey daf ñuy lenn bu ñu ko xeexee tey jii dina tax ak képp ku fi mën a ñëw ku mu mën a doon ay la yëwan di nga jox cër doomu banlieue bi. Mhm. di nga jox gëdd doomu banlieue parce que dañu juddoo ci banlieue bi xam li fi nekk xam réalité yi ci nekk ba pare ñu dund fi loo xamante ne tey ñaanu ñaaru suñu doom ak suñu rakk ak suñu jarbaat dund loolu. kon tey ñun bu ñu taxawee seetaan ci loolu dañ ci am part de responsabilité mouvement bi noo koy non loolu ñoo ngi ciy waxtaan ak kii bi ak euh, encadrement beeg ñëpp. Mhm. ay la yoon bés bu. mbaa nekkul mouvement de soutien yi nga xamante ni dañ mujj waat ci politique rek sëñ bi. Euh, en tout cas li ñu war a def. waaw bés bu ñu ci àggee pour war ko def dinañ toog def point de presse. Mhm. képp ku ci war a jot. ci kàttanu yàlla su di nga ko jot incha allah. waa dañuy gis ni lu ëpp yow waa Bennoo Bokk Yaakaar te ndaw yi nga xamante ni sax dañu bokk ci kuréel bi dañu gis ni ticket yu bëree bëree bëri ci événement Wally Seck bi da nga leen ko jox. lan nga seq ak ñooñu. waaw parce que li ma seq ak ñoom tey jii yàlla dafa ma boolee ak ñoom. Hmm. parce que li tax yàlla boole ak ñoom ay ay ndaw lañu comme man. ñu nekk ay jeunesse su banlieue bi. Hmm. ma nekk doomu banlieue bi. Hmm. tey ñoom bu ñu soxlaa. ñoom li ñu soxla dama ci taxaw. waaw mais mais jeunes yooyu ñu tuddee leen ay jeunes leaders ñu nekk biir APR ñooñu rek nga mën a jox sans ticket. non du ñoom rek laa mën a jox sans ticket. waaw jii képp koo xamante ne ndaw nga tey nga soxla nekk ndaw réew mais seen bos moo gën a fës te si APR lañ bokk nag. waa mais xam nga tey euh, ay la yoon dafa am ñoo xamante ne tey soo leen boo leen defalee même soo ko bëggul boo ko waxul sax ñoom dinañ ko wax mm-hmm. ndax am na ñoom ne du ñu sëkk jëf mm-hmm. ndax tey boo leen lebalee lu boo leen lebalee guddi boo leen lebalee naaj ñu fay la ker mm-hmm. amaana loolu bokk na ci te tamit dafa am foo xamante ne dama toog dama waxtaan ak ñoom sama gis-gis nekk seen gis-gis sama gëm-gëm nekk seen gëm-gëm sama bëgg-bëgg nekk seen bëgg-bëgg seen bëgg-bëgg dafa nekk lan pour ay yoon mooy jeunesse bi ak ku jàppale jeunesse bi ak ñi nga xamante ne tey ji dañu nekk ci banlieue bi di nax doomu banlieue bi hmm. tey mbubboo président di leen nax ay la yëwén ñoom dañ jóg pour dénoncer lool ay politiciens la àndal nag am na yeneen politiciens yoo xam ne ñu ngi seen ginnaaw mais mais mais gisoo ko ci opposition bi waa coalition yeewi askan bi nekk yow nga choisir ay jeunes yoo xamante ni dañoo nekk biir Benno Bokk Yaakaar àdduna di woowee seen bopp ay jeunes leaders nga ne ñoo yor dëgg Kër Massar bi képp ku fi mhm. mi ngi njëkkee ci jamono yonent bi saay ndax avant diine ji taxaw dafa politique ba mën a convaincre ñu bëri ba ñu mën a dugg ci diine islam. Mm-hmm. est-ce que yéen yi doo leen dimbali sénégalais yi ndax heure boo leen bëggee làkkatu foog ngeen jël kaamil alxuraan gàdd ko wala ngeen indi benn ay alxuraan. non man man du ma politicien. non yaa ngi nii di delluwaat ci diine. non soo gisee ma wax la delluwaat ci diine. mooy tey tey politique bi nga xam tey boo nee politique. Mm-hmm. c'est normal. tey am na foo xam ne boo fa tolloo wala nga àgg fa war nga mën a politique ndax lu jëmale sa jeunesse kanam. Mm-hmm. politique bi tey bokk na yow li nga def sax politique la hmm. yaa ngi njëkkee politique sa biir kër ndax saa boo xëyee yaa ngi xool nooy recadrer sa doom hmm. di ko sensibiliser di ko wax li baax ak lu bon di hmm. mu mën a ràññee li baax ak li bon tey loolu ci politique la bokk non bi ngeen di def Sénégal pour bëgg tur quoi <laughs> xam nga politique li ngeen di def Sénégal pour bëgg tur jël jeunesse bi mbubboo leen dañ leen taxawal ay entreprise ah dañ leen di jàppale fekk yéen a ngi dóor jeunesse bi di leen utiliser ñun yàlla dafa def dañoo am tour am image avant politique bi nga wax. mais lan moo la dugal ci politique li tax continuer woo sa tour book sa image boobu nga bëgg a ñëw gane si langue politique. li ci laa jëm li tax ñu am tour am image. Mm-hmm. te yaakaar naa ni Sénégal boo nee làmb boo bu dee tour rek. foofu la ëppee. Mm-hmm. bu dee image foofu la ëppee. Mm-hmm. tey boo ñëwee lu toll ni Ama Baldé Gris Bordeaux nga taxawal ko. journée boobu ku naroon def manifestation sax doo ko def ndax xam nga ni boo ko wootee doo gis kenn. doo gis kenn kenn kenn même xew-xew politique sax bu amoon. Mm-hmm. <laughs> du du am parce que ñëpp ci loolu la ñuy focus. Mm-hmm. Mm-hmm. kon ku mën a créer événement yu toll noonu. kon yaakaar naa ne sa image dem na. tey ci loolu nga créé da nga créé emploi nga créé. yow yemoo ci wax rek da da ci boole di jëf. ndax yaa ngi yi emploi. ndax benn tàkkusaan nga ñëw jël si vingt personnes nga jox leen ci avance. ñu mën a dem dundal ci seen njaboot. tey ci journée boobu. ñi ci mën a gis seen bopp na ba ci yéen seen télé yi da ngeen gis seen mhm. bopp ndax di ci am ay mhm. image am mhm. nga dem tey ci jaaykatu ndox bi nga dem ci jaaykatu gerte bi ci jaaykatu tiset bi defarkatu billet bi ba ci jaaykatu xar yeeg furu yeeg ñoom ñëpp dañ ciy gis seen bopp kon même sëriñ ci sax da ciy gis boppam kon kooku créé nga emploi waaw léegi kon mun nañ xaar daal El Hadj Ibrahima Diop fi mu toll ni mouvement bi muy def dina taxaw fii ak 2024 pour soutenir président Macky Sall mu am troisième mandat <laughs> li ma la mën a xamal daal ah ndax yaa ngi si langue politique bi. li ma la mën a xamal donc di ñemee goo foo jëm. non fi ma jëm ragaluma ko de. yàlla xam ne mais li tax mënoo wax ni président Macky Sall ngay jàppale 2024. fi ma jëm ba pare yaa ngi lëngoo chaque jour di ànd ak ñoom guddeeg bëccëg. fi ma jëm ba pare nga tooñ waa Kër Massar tamit jóge Pikine ñëw Kër masaar tooñ leen nga ne jeunesse su Benno Bokk Yaakaar nga gis ni ñoom nga bokkal gis-gis. xam nga Kër masaar waaw. lu ma Kër Massar sax géej waay. Mhm. Pikine ñu xëy bi ñu ko juree mu mu jur ko mu màgg. Hmm. mu feral ko. Hmm. mu dem benn diwaanu boppam. Kër Masaar Pikine ko jur. Hmm. nàmpal ko tette ko ba mu màgg. mu feral ko. tey mën naa ne ñi ko sanc ñëpp ñi ci ëpp te nekk fi nekk fi ay ay dëkkaan lañ leen wooye du ñu ay dëkkaan. Pikine lañu tey bu xar kanamu kanamu Kër Masaar soppeeku. tey ñi fi ñëw toxu si jënd fi ay kër. ñoom ñoo ko soppi. te boo koy xool majeure partie bi ñu dëkkoon Pikine ñoo fi yëpp hmm. tey ay la yoon ma amee fi soxla hmm. yoo fi amee soxna samay doom juddoo fi hmm. kon yaakaar naa ni kenn ëppalewu ma tey mënoon naa dem sama kër gii ma jënd ma dem jënd ko feneen dem dëkki fa kon dama cër bi ma am Pikine moom la am Kër Massar. Mhm. Mhm. te lu metti su ma daloon balaa may gis waa Pikine waa Kër Massar mhm. laay njëkk. léegi sa base politique daal Kër Massar la fi mu toll nii. bon du question ko sama base politique Kër Massar la man combat bi may xeex. pour jeunesse su banlieue bi la. muy diggante Pikine ak Kër masaar cër bi ma am fii moom laa am moom la am Pikine. mais mouvement fu ñu koy sosee Kër Massar wala Pikine. Kër Massar lañ ko sosee. mais li ñuy xeex diggante Pikine la. ak Kër Massar. pour jeunesse su bi ndaw banlieue bi. mais lan moo tax demoo sosee ko Pikine nga ñëw di ko sosee Kër Massar. wala waa Kër Massar ñoo gën a nooy bopp bopp. yow ay la yoon dama yaakaar ne da nga doxantuwul Pikine boo doxantoo Pikine di nga xam ne même buñ ko sosee Pikine tam buñ ko fa dañ ko fa war a sos. non yow yaa ne Kër Massar nga koy sosee bàyyi Pikine te fa nga juddoo yaroo fa. parce que li tax ma koy sosee Kër Massar laa yeewoo li ma ñafe ba am ko ba si fii meeg si Kër Massar laa ko amee. kër doom kër Massar laa koy delloowaat. Mhm. dam ma delloowaat la kàddu gi. waaw merci beaucoup président moom leer na fi mu nii nii. Mhm. Euh, mouvement bi waaye daf ñu nëbb nan la koy tuddee ak kañ la koy def. Mhm. xanaa ñu xaar rek askanu Kër ma saar yëpp ñu ngi koy xaar. Mhm. xam ni am nañ gan El Hadj ma Diop. Euh, dana boole ci ay activités mooy benn mouvement politique boo xamante ni li ko tax a jóg mooy soutenir ñi nga xamante ni mooy département bu Kër Massar ak département Pikine. ak am yéene tamit ci Sénégal yëpp mu yegg fa. loolu daal la ci ay kàddu. ah émission hein, café weekend Véro nak li def rek mo dama bëgg ñu dugg ci actualité mm-hmm. hein lamb euh, ndaxte comme niñ ko xé rek bu ñu nee Kajoor production fa ñu wax lamb <laughs> d'accord man fofu laay jëm parce que sank dafa dugg ci day def ay événement ñu gis ne ci walu événement bi ngay def euh, El Hadj Ibrahima Diop danaka yu ci bëri du du aboutir à rien lan mo waral loolu bon boo xoolee loolu du du man mm-hmm. ndax li tax du man parce que ñun Kajoor production lépp li ñuy war a def dañ koy def. Mm. ba mu mat. Mm. tey mën naa ne ñaari combat lañ moo ñëw mu ba ñetti komba muy Maama Lamine Garga bi. Mm-hmm. li ci xew ñëpp gis nañ ko dalul ci man dalul ci ku bokk ci Kajoor production. Mm-hmm. ci mbër mi war a bëre la dal. Mm-hmm. tey loolu du du du lu ñu mën a teg ci kaw Kajoor production. day doon loo xamante ne tam mbiru suñu borom la. ndax jaam bi boo joxul sa bopp rek loola yàlla jox dangay sant mm-hmm. te yàlla moo ko dogalee noonu bi mu ñëwee jël ko avec philosophie santaat yàlla bu baax baax te xam ne jaam bi buy neex chaque jour da nga war a tiit ndax bi ñu calculer dañ ñëw tëgg le 9 janvier mm-hmm. sa jom ibama fees del ñu tëj ko mu nekkoon suñu première journée Njaay Tine ak Babi Ndione Junior mm-hmm. kon bu ñu ñëwaatee dugaat yeneen journée moom jafe-jafe dañuy sant dañuy fàttaliku démb neexoon na te li neex démb nag tey suba mooy indi naxaar bi mm, danoo gis ne tamit daanaka yow ci combat yoo dugg rek day am jafe-jafe ba ci combat bii nga xamante ne wax nga ko sànq tudd nga ko sànq muy ki nga xamante ne moom moo di combat Gris Bordeaux ak Ama Balde. gis nañ ne ñëpp a ngi laam-laamee ndax Ama Balde day njëkk a ak ki nga xamante ne moom moo di Modou Lo day njëkk a bëre ak Gris Bordeaux. non loolu moom wax nañ ci ba pare ba tey ñii sax dèjà laa demoon CNG. Mm-hmm. régulariser diggante Ama Baldé ak Gris Bordeaux pour le 9 juillet incha allahu mm-hmm. rabbi mm-hmm. ñoom ñoo ciy bëre mm-hmm. am na yeneen combat yu mag yoo xamante ne war na ci am yeneen mbër yu mag yoo xamante ne suba incha allah war nañ ñëw fii ñu jox leen seen avance pour ñu ficelé ko pour askan bi mën ko xaar pour le 9 juillet mais lu juuti 9 juillet bi am nañu combat beneen pour le vingt mai diggante armée benn baraak ak mbay guy gi bu bawal hmm. boobu ñun ñu ngi ci jëm le 20 mai incha allah arène nationale d'accord léegi lan nga ñu mën a wax ci li naan ne combat bi maanaam ax lu làmb mhm. euh, on parle de la lutte milieu mafia la bon man moom wax dëgg yàlla <laughs> gisuma mafia bi hmm. ndax li tax gisuma mafia bi mooy dundaguma ko ndax euh, séquma seeg nit ay mafia Mm-hmm. man li ma ci seq ak ñëpp ci monde de la lutte que ça soit muy mbër. Mm-hmm. wala communicateur wala koo xamante ne tey jii ménager la li ma intéressé ma gis naa mbër bëgg naa ko. Mm-hmm. waxaale naa ak moom bu ka kase bi nekkee 100 pour cent ñu jox ko pour cent mu dem wàcc après ñi ko war a yëg yëg ko mais man. bu fekkee am na mafia gisuma ko te dunduma ko boppam. waaw parce parce que li tax ñuy wax loolu en général dañuy gis ne da gis benn ben, euh, Muña production par exemple. voilà mom mi nga xamantene ne dafay ndaw yu banlieue yi macha allah ñaanal yalla fi nga xamantene fofu la jëm gënal ko fofu fi nga xamantene ne fi la joggé ñu gis né par exemple tey jii moom mun na jël ben mbër fay ko ben huit cent millions yow nga ñëw par exemple yow en tant que Kajoor production nga ñëw euh, jël même bi nga dem fay ko cachet bu ëpp bobu noonu. bon man moom franchement parler loolu dalaguma ndax di wax mhm. dalaguma mooy man su ma bëggee benn mbër di ko waxaale mhm. dès l'instant ma dégg na am na bi ci nekk rek dootuma ko waxaale parce que mi ngi mel nga ñëw ci bitik fekk benn marché kenn di jënd nga bëgg jënd lool ci kaw ci kawam loolu day daal di xaraam. ah gis mais gis nañ ko ak ak sa digganteeg Ama Balde ndax Ama Balde moom amoon na combat bu pare. da nga comparer lu bokkul. Mhm. Ama dafa am combat Modou Lo. bi ma amee combat ak yàlla mi dara tëwul def Modou Lo comme règlement moo ko tënk dafa am benn deadline bu ñu ci àggee. Mhm. CNG da koy libéré pour mu mën a dem jëli beneen combat. Mhm. comme carrière mbër guddul du toog di xaar. Mhm. presque ama toog na cinq ans bëriwul. bi mu toogee di xaar ba trois mois yi mat. CNG libéré ko ne ko mën nga dem jëli beneen combat. tayla la ce que nga mën fi wat ci dit bi. Mhm. loolu mo waral ñu adversaire. Mm, d'accord que caché bi. <laughs> li est-ce que di ko wax. <laughs> wa légui euh, ma euh, banlieue bi. Mhm. gis nañ ne da ngay dox ci social ci lu aussi. Mhm. te gis nañ aussi que Massar banlieue ba mu daj dafa bëri ay ay yow ban initiative nga jël si ñooñu noonu ndax yow pare nga tamit pour tëggal leen ñoom tamit ay combat ndaw yi nga xamante ne ñoom ñu ngi fi nga xamante ne moom moo di ci banlieue bi nekk ci milieu làmb te amuñu ay combat nan nga leen mën a jàppale. waaw ah làmb ji boo xoolee ñi koy bëri ñëpp ay doomu banlieue bi la. ndax dèjà journée Ama Baldé Gris Bordeaux am na doomu Kër Massar. am na mm-hmm. doomu Pikine te bi la. Mm-hmm. am na doomu Diamaguène. Mm-hmm. am na doomu Guédiawaye. ñooñu kon doomu ndawu banlieue bi ñoom ñoo koy bëri. ça mhm. combat et banlieue bi parce que mhm. comme ci banlieue bi la ñu wala a def dañ ci banlieue les ay la yoon boo combat le 20 mai qui est grand combat bi doomu banlieue bi la mu ngi dëkk fini buun muy armé bras département Kër comme kon ñoo ngi xel banlieue comme ni ko sëñ Modou ñaa doon defee. Mhm. ok Dame. ma la carte. mais parce que euh, Modou sont nañ. Euh, dañ koy ñaane rek mm. yàlla na ko yàlla yërëm ndaxte man yàlla def na am na mës na am ak moom ay jataay mm-hmm. daan feebu mbër ñu gisoon ni moom da doon promouvoir surtout euh, ñi nga xam te ñoom ñooy jeunesse bi surtout ñi nga xam te ñoom ñooy soog a débuté ci ci li nga xam moom mooy wàllu làmb mm-hmm. est-ce que Kajoor production mën nañ ko xaar ci wàllu woowu waaw ñun ci ci ci ci tànk yooyu la ñu bëgg a nekk xool ñi nga xamante ne tey ji peut-être toog nañu benn diira bu yàgg bëriwuñu gars yi fee fàtt nañ leen ak ñi nga xamante ne dañ nekk ci punt pour bëgg a génn ñu fexe ni ñu leen di génne fexe créer tam ay champion ci loolu la ñu nekk te am nañ ci ay projet yoo xamante ne saison prochaine incha allahu rabbi yoo xamante ne ay jeunes lutteurs lay doon ñu fas yéene lañ ci defal benn tournoi boo xamante ne ñoom dinañ ci gis seen bopp te buñ ci génnee ñëpp dinañ leen ràññee te doomu banlieue bi dinañ ci ëpp yooyu yëpp nañu ay projet la yoo xam ne ñoo ngi koy waaj pour saison prochaine incha allah. mais yaa ngi wax euh, président euh, pour mu jàppale la nga mën a fexe am ay projet yoo xamante ne da nga koy teg pour ndaw ji. mais est-ce que ci milieu làmb bi nga xam te ni nekk nga ci te gis nañu làmb ay ndaw rek ñoo ci nekk mhm. tey nga yaakaar amul ay projet yoo xamante ni war nga ko war a mën a teg loo xamante ni ci wàllu làmb pour président mën la si ñun projet yi ñu yor làmb moo ci gën a tuuti projet yi nekk suñu bopp loo xam te ne day jariñ ndaw ñi làmb moo ci gën a tuuti ndax am nañu yénn ci loo xamante ne jéggi na làmb bu ñu jógee ci làmb dañuy demaat war a nekkaat ci leneen loo xamante ne ndaw ñi dañ ciy gis seen bopp leen jariñ tey li ñuy tëggee làmb du du état moo ñu ko jox suñu propre moyen la ñu jël ko def ko ci làmb ji tey lu ñu ci amaat tamit dañ koy delloowaat ci ñoom ci ci ndaw ñi parce que loolu moo ñu tax a jóg loolu mooy objectif bi fu nekk nii parce que ñu dañ ñoo ko nekk ambassadeur ndaw ñi. mais actuellement nii tey euh, taxawal nga ki nga xamante ne moom mooy Ama Baldé ak euh, Gris Bordeaux mhm. nga xamante ni incha allah mois de juillet si lañu ñu war juin si la ñu war a bëre est-ce que Kajoor euh, production actuellement ni mi ngi préparer ay grandes affiches. si boo xoolee xam nga souvent da nga doon gis journée yu journée yu mag yooyu combat spécial bi ay combat yu ndaw lay doon. Mhm. ba amateur bi koy seetaan sax buy ñëw di seetaan moom ci li muy gën a focus mooy ci combat bu mag bi. Mhm. Mhm. te boo paree pour tëgg affiche yu mag yooyu ñëpp toog seen saal di seetaan wala ñuy ñëw estaat wala ñuy dagg seen i euh, jënd seen code perfet bi pour toog di ko seetaan da nga leen war a jox lu am qualité. bokk na ci tey ñu décroché Maama Lamine ak euh, Goro Sob mm-hmm. pour dugal ko ci journée boobu mm-hmm. loolu rek grand combat la ñooñu rek dañuy mm-hmm. feesal arène nationale parce que bëgg nañu amateur itam ñu am loo xamante ne qualité lay doon loo xamante ne toog seetaan ko di nga kontaan ak yeneen yoo xamante ne tamit ñoo ko ciy dox pour war ko ciy dugal mais yéen ñi nga xamante ni tey parce que bu dañuy faral di wax ne lamb bu amul promoteur CNG du exister mbër du am parce que yéen yéenay bailleurs yi est-ce que làmb dëgg dëgg dëgg dëgg li ngeen ci doon xaar par rapport ak gestion bi xam nga ak li ngeen ci li ngeen si yaakaaroon ak ni mu war a demee est-ce que dëgg-dëgg ya gis ngeen ko ci. bon mooy la làmb comme ni nga ko waxee rek <laughs> promoteur moo tax ñuy wax làmb. Mhm. promoteur bu amul làmb du exister. Mhm. CNG dootuñu amati place ci làmb war tamit noonu parce que moom mooy bailleur bi. ki mhm. jël xaalisam di ñëw di ko dugal. man kooku mooy kooku mooy lépp mooy base bi bon loolu nag dafay laaj ay yenn accompagnement yoo xamante ne état moo koy def. du xaalis bu muy yëkkati di ko jox promoteur yi li mu leen ni ni mu koy defee mooy tey am na ay société multinationale yi fi nekk tey di di jariñoo alalu askan bi mhm. te au retour askan bi mënuñuy gisaat seen bopp te niñ ci mën a gisaatee seen bopp lu mel ne sport national muy suñu làmb ji mhm. tey ñooñu état war na leen mën a waxtaan ak ñoom ñu jël ñoom li ñu am benn pàcc boo xamante ne làmb daf ciy am wàll su ko defee tey promoteur bu doon tëgg par exemple

dañuy gis souvent réeroo day am si si si si CNG de lutte bi mooy règlement yi nga xam ne day am. ak mbër souvent sax nga gis promoteurs yi seen bopp aussi tamit. xëy na day am ci yoo xam ne day xew ci biir CNG bi. te ñoom duñ leen avertir te pourtant yéen duñ leen avertir te pourtant yéen yéenay dugal seen xaalis. est-ce que communication bi war a am ci entre le CNG. ak promoteurs yi ak mbër est-ce que communication bi war a am dëgg-dëgg am na parce que souvent nga gis mbër boo xamante ni. dañ koy dagg. combat bi jeex muy kaas est-ce que kooku maîtriser na règlement yi parfois nga gis promoteur boo xamante ni tamit. moom day kaas soit ci problème communication lay doon wala frais d'organisation wala souvent daal dañuy gis ay réeroo yoo xam ne day am ci biir promoteurs yi ak waa CNG ak mbëri est-ce que loolu lu war a teg lu war a yoon lu war a nekk yoon la loolu. maanaam maanaam promoteur ci ban côté la ñuy réeroo ak CNG. non parfois da ngay gis promoteurs yi. Mhm. souvent da nga daan dégg ñu naan bi wàll ci wàllu euh, frais d'organisation bi dafa metti parfois nga dégg ñu ne li ñuy fay stade dafa metti ba parfois sax ngay gis yenn promoteurs yoo te ne dañuy dañuy bàyyi arène nationale pour dem stadium mhm. ba est-ce que loolu toog ngeen si ba am si terrain d'entente boo nga tey loolu CNG di teg ba mu koy teg dafa woo promoteur yëpp ñu toog composant mhm. de la lutte yëpp la toog la ñu toog ñu waxtaan ci ba tënku ci loolu mhm. kon nit delloo sax nga tënku ci benn mbir rek loolu amatoo loo ciy kaas ba fa ko waroon kaasee mooy bañ koy nas kaas kaasoo ko suñ nee ba nas ko kay ba mu sotti kooku amatoo looy looy kaas mhm. kooku da ngay wax ni rek pour bëgg wala pour bëgg ñu dégg la mais amoo looy kaas mais kajoor production xam nga tey mhm. tëgg làmb du force mhm. da ngay mën nga tëgg mënoo nga bàyyi dem seet leneen tëgg làmb du force de Kadior production Ama balde Gris actuellement ni mom moy événement bi nga xamanteni sénégalais ñu ngi koy xaar surtout muy wa Pikine ak wa Fass tay supporter yi nga xamanteni ñi ngi sétan lan lañu wara mëna xaar parce que amant balde 5 ans tok nako ko ngir bodo jugé na ci combat yagul mhm. tay lan lañu wara mëna xaar ci euh, kadior production wa li ci mëna xaar bari na ndax dina bëri ay surprise dina bëri dina am spectacle dina am art dina am cosaan ndax bo xolé ñaari mbeur yi bëre kenn ki tukulóor la kenn ki po kenn ki séré la kenn ki pol la mhm. kon cosaanu ada ak cosaanu pol dina fa ñew Mhm. cosaanu séeréer dina fa ñëw mhm. kon dina bëri spectacle te li may wax mooy làmb la joo xamante ne man biir na ma ne mili dina fekk ñu tëj stade bi mhm. te wàllu sécurité nag moom lépp lu mu jaral yàq kat ba nga war a mën a ñëw pour yàq ci bés bi man jaral na moom lu ko raw ba sama bés jàkk ba du yàqu surtout surtout si wàllu sécurité lépp lu waay mën a indi pour yàq Mm-hmm. boo fu ñëwee di nga fa fekk lu ëpp la nga fa indiwoon pour yàq loo xamante ne la nga yàq dina la ko delluwaat ci sa bopp ndax mënoo jël ay centaine de millions def ko ci benn tàkku saa nga gis benn dix personnes wala vingt personnes di ñëw bëgg la ko yàqal ngay seetaan. Mm-hmm. parce que képp ku fa ñëw su boobaa sa sécurité ñun ñoo ko war a assuré. Mm-hmm. di nga ñëw ci jàmm noonu ngay ñibbiwaatee ci jàmm. yaakaar nañ daal incha allah bis bu ñu ci àggee ci kàttanu yàlla. lépp lu ñu war a jël comme matuwaay ci wàllu sécurité. dinañ ko fa jël ba mu mat sëkk sëkk sëkk sëkk sëkk sëkk sax waaw euh, Dame merci ñu ngi ci côté làmb bi El Hadj Ibrahima euh, ñu gis la fi mu toll ni affiche bi gën a mag muy Gris Bordeaux ak Ama waaye tamit dox bi dafa ndax dañu gis suñu confrères yi démb ci journaux yëpp dañu CNG moom jàpp na mois de juillet waaye promoteur bi la xaar. gisaguñ ko nga xëy tey suba dem. waa lan moo kale woon dossier bi xam nga xam nga seen confrère yi ñoom. waaw daf ci am ñoo xamante ne bu ñu la woowee téléphone jotuñu la. ñu woo la jotuñu la. bëgg information. dañ lay jéem a kobas pour jéem a xool ndax di nga réagir wala doo réagir. ñoom loolu rek lañ def fekkoon ne ñoom. da dañoo yàgg mais looy xaar bañ lay kobas nag. non tout tout waroon dem régler affaire bi bu yàgg. ñu wax démb yuuxu revue de presse yëpp tey nga jóg régler affaire bi. làmb dafa am yoon dafa am lu muy doxee. Hmm. ñoom dañuy wax te li ñuy wax. maanaam maîtriser wu ndax dama jàpp ne balaa ngay bind mbir mhm. ki mu concerné war nga ko woo mhm. laaj ko mhm. ne ko lii ak lii ak lii moo am lii ak ak lu ciy sa xalaat moom mu jox la lii xalaat est-ce que bu ñu la woowee di nga wuyu gaaw jox leen information ndax bu parce que ñun baaxoo information à soo mooy ci tàng-tàng tam bu ñu xamee foo jëm doo àgg am na loo xamante ne boo koy dox te àggagoo du da ngay génn di wax da ngay dem def li ngay def pare tey bi ñu ko waree def def nañ ko tey te ñoom yëguñu ko. waaye ñoo yuuxu démb. ñoom ñoo yuuxu démb. Mhm. mais ñun ba ñu waree def la ñuy def def nañ ko te ñoom yëguñu ko. Mhm. dèjà combat bi ma la wax ne ñun ñoo koy taxawal muy góor a soog. Mhm. ak euh, Maama ñoom ba léegi yëguñu ko. xam nga ne boo bëggee am la da ngay a kotuwaay ni ci jege ko. nga waxtaan ak moom. te ñi ko bind tamit ñoom xam nañ ne def nañu erreur démb woo nañ ma waxtaan nañu ñu retrouvé xam nit ki tam ci li muy liggéey ci lay amee njuumte. waa mais làmb lan moo la dugal ci làmb ndax dañuy gis du ëpp yéen ci promoteur yi da ngeen di jooy làmb amul dara sponsor yi daw na yow ñu gis da ngay gën a bëgg làmb tamit lan moo nekk ci biir làmb waaw ndax da di jooy rek làmb amul dara bon man nag fi mu dugal ci làmb mhm. dama juddoo Pikine benn yaroo fa màggee fa ama seen yàlla def mu nekk suma xarit mhm. lool fu mu mos a bëre mbapat ànd nag mhm. làmb boole wuñu boobu dara nekkul dara ak euh, ndem si yàlla Tyson Junior mm-hmm. yàlla ko yàlla yërëm mm-hmm. ñu daan ànd daan defandoo lépp tey ñu dem ba Eumeu Sène mën naa ni combat yi mu bëri yépp benn combat kese laa nekkul ci cumikaay ñu ma Bombardier mm-hmm. que li tax ci cumikaayam dès l'instant nga am licence mënatoo di wàcc di cumbukaayam parce que yoon du la ko may yoon mën na la ko may sax amaana waaye ndax nekkatoo doomu Pikine kese. Mhm. ndax suba da ngay bëgg beneen gox mbërëm. Mhm. Mhm. tey boo boo nekkee nit ko nit ko làmb da ko bëgg di ko dund. mu nekk ci yow tey boo demee ba gis ne war nga mën as war nga mën a jàppale ñu nekk ci làmb. loolu moo ñu dugal ci làmb. mais sponsor yi noo leen di dundee ak ñoom. waaw sponsor yi moom ñun moom xam nga lenn la man man bokk man. man duma ko def. duma taxaw benn bureau kenn ki la fëgg di la. ci ñàkkal sama bopp fayda boo amee lu am qualité benn yoon ngay dem déposer ko sa lettre bu ñu ñëwee xayrun bu ñu ñëwul tamit xayrun nga jàpp ci yàlla. après bu dee bu dee ñi leen di soxla dafa bëri tamit jar na fa gàtt bunt nag monsieur Ibrahima. non non attends xam nga am na ñoo xamante ne tey da nga leen soxla pour dem fëgg seen i buntu. Mhm. considération bi ñu war a am ci sax duñ ko am. Mhm. duñ la respecté. te mu wóor ne bu dul woon ak document boobu noonu kese amoo ci ñoom soxla mm-hmm. te mu wóor ne ñoom ñooñu koo ci daje wala ku ñëw fekk la ba fi nga du la mm-hmm. man nag sama bopp mm-hmm. fayda mais dañuy gis da ngeen di fay ay kase yu bëree bëri kase yooyu moom euh, ay banque ñoo nekk seen ginnaaw di signé ak yéen partenariat wala seen xaalisu bopp la ah, man ndax dañuy gis ay kase cent millions ah <laughs> man de wax dëgg yàlla man Ibrahima day oui musuma fu ma lebee banque samay propre moyen laay tëggee làmb. làmb suba fu muy jóge wala fu muy jóge mais ci tey jii ñun ci li ñu liggéey tey dañuy xoole li ñu liggéey war nañ ci mën a génn pour tëgg làmb. ci jaay terrain wala. ci li ñuy sa wala jaay seen i kër. li non man par exemple yow ci li ngay liggéey tey boo demee am ambition wu mm-hmm. nga ni da ngay investir ci làmb. Mm-hmm. te yow yaay xool mën ngay tegee sa plan yi tey mën nga am sa benn 10 millions sa 10 millions boobu yow. yow yaa xool nan nga ci projeté li nga ci bëgg a def mi ngi mel ni tey nga ñëw fekk rek du làmb kese tey mi ngi nga am benn 10 millions nga xalaat créer créer benn def ne da ngay dugg ci élevage mm-hmm. Mm-hmm. wala nga ni da def commerce mm-hmm. xam nga doo jël 10 millions def ko ci commerce bi doo jël 10 millions def ko ci élevage da koy waaj mais làmb ji gagnant bi ngeen ci def gagnant gagnant boobu moom fan ngeen di jaar parce que da ngeen di jooy naan bi ne jaay naa sama kër jaay naa jaay naa lale mais est-ce que sax du est-ce que sax du risque le fait que tey nga nga nga fere ay millions tamoo ah, sponsor est-ce que loolu tamit du risque parce que ñëpp xam nañu tey làmb pour nga génn ci il faut nga la il faut da nga am sponsor bokk na ci li lay li mais am na làmb yoo xam ne ay la yoon boo ko tëggee nga am sponsor da ngay génn nga ñàkk mhm. sponsor da ngay génn xam nga tey doo ñëw fekk yaaw jaa nga ni da nga koy fay benn Hmm. somme boo xamante ni tey jii di ci xaar pour pour au retour nga génn ci mënul nekk. Hmm. te yow jaal mënoo ko tëgg fay ko par exemple cent millions nga bëgg mu jaay la pay-per-view 500000 mënul nekk. kon Ama Baldé Gris Bordeaux ci pay-per-view lañ koy nar seetaane seetaanee. loolu koy amul amul amul ma dem ta ñëw. loolu koy xanaa kon yéen seen intérêt personnel ngeen défendre fi mu toll nii xoolatoo leen intérêt sénégalais. lan mooy intérêt sénégalais. ah mais def ko ci télévision ñëpp seetaan ko. def ko ci télévision ñëpp seetaan ko ñëpp seetaan ko comme comme ni mu doon amee ñu mënul dem stade toog seen kër. comme ni mu doon amee assurer ah, seen sécurité. maa ngi soog a kontaan ci question bi. Mhm. coupe d'Afrique bu amee. wala coupe du monde am dañ koy jënd. Mhm. buñ ko jëndee jox ko askan bi. Mhm. ñu seetaan ko télévision yooyu di ko jënd loolu ñuy dem di jéggaan di ko jënd moomuñu ko ñun li ñu moom lan moo tax ñoom mënuñu koo jënd te pourtant buñ ko jëndee ci ñun xaalis boobu ñun ci askan bi lañ koy delloowaat. waaye ñoom droit yooyu ñuy dem di jënd ci nasaraan si xaalis boobu ci tubaab bi lay dema dugaatul ci réew mi mm-hmm. après ñoom dañ koy jënd au retour dañ ciy gañewaat dañ ciy am ay sponsor di publicité yooyu yëpp mais ñu commerce la ñuy def ëpp ci askan bi intéressé wu ci wàllu làmb dañoo ndóol ñu ëpp ci askan bi intéressé si wàllu làmb dañu ndóol dañoo ndóol waaw ñi nga xamante ne ñooy gën di ci sonn di xool connexion bi kale na wala kalewul ñooñu amuñu amuñu moo tax ay y yoon ñoom ñëpp dañ leen bàyyi xel ba nga xamante ni tey cote yi ko jaay ci prix yoo ku ci nekk di ci mën a jot kañ ngeen di commencé jaay ko di du yàgg dara fan incha allah. Mm-hmm. Euh, léegi est-ce que nekkul loolu moo tax yéen euh, promoteurs yëpp làkkatu tamit lu ñu wax rek ngeen làkkatu ci politique da ngeen a mënatul dem te dañoo gis ni seen seen seen drapeau yëpp politiciens yi ngeen koy tudde man nag ay yoon drapeau yi ma combat yi ma tëgg yëpp mën nga dem ci parrain yi. Mm-hmm. parrain bu ma tëggee boo xam ne tëgg jox naa la jox naa la drapeau. Mm. li ma lay njëkk xaar ma ci yow dara soxla ma ci yow dara parrain bi nag ay la yoon su amee am amam wala mën-mënam dem jàppale mbër bi bari na ko jàppale mm-hmm. amul benn parrain moom ne jox naa drapeau ak ni ñuy médiatiser parrain bi wane carrément moom koy tuddee xaaroo ci moom benn parrain mm-hmm. maa ngi ko ñëpp nag laa koy lancé te ñoo ngi may dégg ñoo ngi mm-hmm. taxaw sañ sañu bi ma ko tuddee drapeau yëkkati na un centime jox ma du ci kenn kenn yëkkatiwu ci un centime jox ma waaye mbër yi leen tuddee jëndal nañu mbër yooyu ay billets. Mm-hmm. Mm-hmm. merci mm-hmm. waa léegi comme fi may jeexalee rek mooy fi mu doon waxee sànq mbëru Kër Massar yi ban jege nga am ak ñoom parce que Kër Massar tamit bëri na ay mbër comme yaa ngi Kër ma saar tamit nekk promoteur boo xamante ni macha allah yaa ngi tëgg kase yi gën a mag léegi nag mbëru Kër Massar yi nag ban taxawaay nga am seen kanam bëri nañ ci de. waaw mbëru Kër Massar yi comme ni ñu koy waxee wax naa la ko léegi ñun journée ñuy tëgg ñoom am nañ ci wàll ñoo ngi ciy bëre am nañ koo xamante ne mi ngi nekk écurie jëf soog a nekk mhm. tëgg naa ko ak yeneen écurie yu nekk fii biir Kër Masaar mhm. yu ci ëpp ñoo xamante ne tey ay doomu Kër Masaar lañu te wax naa la ko léegi Ama Baldé Gris Bordeaux bi dina mhm. am koo xam te ne Kër Masaar la dëkk te dina ci bëre ci biir Kër Masaar gi Kër la dëkk te dina parce que boo xoolee mbëri nekk biir Kër Masaar waxuma yëmbal ak waxuma buun mais ñi gën a nekk Kër Massar dañu gën a dañu gën a sonn ci wàllu promoteur parce que am na quoi Daaru Misaat fa la bokk ci Kër Massar nekkul ci diggu xoolu Kër Massar mm-hmm. koo fa tëgg jël naa fa mbër kan la bu ndaw jinne bu ndaw mm-hmm. du mbër kon dugg na seen biir koñ <laughs> kon dugg na sama koñ kon <laughs> kon daam ñu delloo la kàddu gi <laughs> jërëjëf euh, mbokk yi xarit yi ah, ñuy am mbégte bu baax a baax parce que franchement tey euh, yaa na bëri na li nga xamante ne leer na si émission bi ñuy jaajëfal bu baax a baax ah Nayet si euh, moom mi nga xamante ne moom aussi tamit euh, bokk na si ñi nga xamante ni fekk na leen fi di jaajëfal également ki nga xamante ne moom mooy euh, Modou Mbaye moom aussi tamit ñu koy jaajëfal bu baax a baax El Hadj yaa naa tey ñëpp ñi nga xamante ni doon nañ seetaan émission bi bëri na li nga xamante ni xamuñu ko woon ci président xam nañ ko tey mu nekk loo xamante ne lu am solo damay bàyyi rek nga joxe sa mot de la fin. waaw merci kontaan nañ xam nga moom moom fi mu toll nii moom comme moom dafa na sama confrère yi <laughs> nee na balaa ñuy bind nañu nañu nañu xam mais loolu tamit la parce que mm-hmm. métier bi tamit jàngal nañu mm-hmm. euh, booy joxe information nga am source mm-hmm. des preuves loolu tamit dañ ci ànd ak moom bu baax di ko encourager euh, ci côté sport bi gis nañ ko fi mu toll nii social bi commencé na gis nañ ko muy jënd ay ballon ak yeneen yi muy àndal aussi tamit gis nañ ci koor gi tamit euh, ay tonu ceeb yu bëree bëree bëree bëri joxe na ko fii ci Kër Massar comme ni mu koy waxee dëgg la léeg-léeg staff bi dañ koy bëgg a filmer mais xam naa staff bi dañuy filmer pour wane tamit ñi nga xamante ne am nañ. te mën a joxe joxewuñu ñu encourager leen wane ni am na lu baax lu nekk ci dëkk bi. aussi jël na engagement politique boo xamante ni. mais nëbbu na nag nangul wax mouvement bi nu mu tudd. Mhm. ak kan lay jàppale. ak ban ak ban parti la bokk. Mhm. Euh, loolu tamit ñu ngi koy xaar ci kanam. Mhm. ñu ngi koy jaajëfal bu baax euh, monsieur Ibrahima Diop El Hadj ndax dem na aji ba ñëw looloo tax ñu koy tuddee El Hadj Ibrahim euh, mu nekk koo xamante ni tey. ku wàccee boppam la gis nañ ko ci émission bi xam man moom dama bëri ay galgal yi may def xëcc naa ko fu ne mais teewul gis nañ dal bi euh, di la jox rendez ci beneen numéro ak yeneen invité aussi di gërëm suñu techniciens yi euh, Amir di gërëm Bouna di gërëm Lil Salam Abdoul Aziz ak aussi Carla mi nga xamante ni café weekend la doon ñëw mais tey yaram bee sutlante ak sama jarbaat bi màgget ak suñu artiste balee toppuñu xanaa kay li ko fàttee laaj rek mooy moom bëri lay jàppale ak kii mais artistes yi nga xamante ne ñu ngi Kër Massar xanaa loolu moom dinañ la ko bàyyi nga tàgg koog moom nan la def ak artistes yi quoi. incha allah jërëjëf mbokk yi xarit yi ah, euh, nga xamante ne moom mooy euh, El Hadj Cissé macha allah moom it ñu koy jaajëf bu baax a baax. di ngeen koy gis euh, chaque semaine ci émission bi nga xamante ne moom mooy café weekend damay bàyyi rek nga xamante ne moom mooy Véro ah <laughs> moom tey nag laal na ci làmb <laughs> ñu bàyyi mu mu tàggatoo. tey boobu laal naa si làmb ndax danoo danoo invité kii borom làmb moo tax ñu laal ci làmb waaye foofu la ñuy jaaree rek tàggatoo ak ami internet yi ñuy seetaan saa su nekk rek. si café weekend comme ni ñu koy waxee saa su nekk rek waaye ñu nuyu bu baax a baax euh, Modou mbaay mi nga xamante ne moom moo ñu oyofal euh, tey jii nii boo tax ñu mën a toog ak ki nga xamante ne moom moo di El ibrahim a Diop ñu koy jaajëfalaat bu baax a baax si disponibilité bi ak ci réponse yi saa yu ñu ko woowee rek dañ koy jot saa su nekk rek ñu koy jaajëfal bu baax a baax di ko remercier waaye di nuyu bu baax a baax ki nga xamante ne moom moo di Marème Marème Diom Ibrahima Ndiaye la ak Penda dem Diop waaye duma fàtte ki nga xamante ne moom moo di docteur Gaye ma koy wax euh, bon guérison yal na la yàlla yëkkatee jàmm ak salaam nga ñëwaat si suñu biir suñu médecin anesthésiste bu baax boobu nga xamante ne dafa am ay jafe-jafe ci wér gu yaramam fan yëpp ñu ngi koy euh, ñaanal yàlla rek yàlla yëkkati ko ak jàmm ak salaam waaye di nuyu bu baax a baax docteur Mayel di orthopédiste fii si dalal jàmm man daal maa ngi nuyu waa dalal jàmm yëpp bàyyi ma kenn. mbaa ku mbaa ku fi feebar dalal jàmm lay faj. <laughs> yaa ngi leen defal publicité xamoon naa ne di ñëw. <laughs> <laughs> xamoon naa di nga ñëw waaye nag foofu laay jaaree tamit nuyu ñi nga xamante ne ñoo nekkoon ci équipe technique bi ki nga xamante ne moom moo di euh, Bouna euh, Amir euh, li salaam ak ki nga xamante ne moom moo di Aziz Maguette Carla comme ni ko ñëpp waxee rek moom tàmm nañ ko gis si café weekend yàlla def tey nekk ñëw ci ñu koy ñaanal moom tamit yaram bi daa xaw a sutante du nuyu baax a baax sama jinne ju ndaw jee nga xamante ne moom mooy loolu <laughs> di jaajëfal bu baax ñëpp rek di wax ne rek nan xaar ki nga xamante xamante ne moom moo di lii salaam ci fii nga xamante ne rek moom moo di téere Yékini arrêt 71 si événement bu mag bi nga xamante ne rek euh, Wally Ballago Seck mu ngi koy euh, defal fii nga xamante ne moom moo di doomu Kër Massar ñu gis ne moom tamit bokk na si parrain yi moom El Hadj Ibrahima ñoom tamit euh, ñu ko fay xaar bu baax a baax waaye di wax na rek ngeen xaar seen artiste seen xarit doomu Kër masaar la moom tamit muy lii salaam di leen di wax dig daje ba benen yoon inshallah benen beneen émission ak benen invité ci Café Weekend merci beaucoup. jërëjëf euh, mbokk yi xarit yi ah, mu nekkoon euh, ki nga xamantene mom moy euh, vero machallah ci cadre yu am solo yi waaye ñuy jaajëfal bu baax baax suñu ñi nga xamantene ñom aussi tam wax na ko muy tay doomu Kër Massar bi nga xamantene mom mo fi fas yéene andi ki nga xamantene mom moy wali sek muy le 29 inshallah allah yaa naa muy tay ji sax laay wax muy tay ji nga xamantene tay tey yaa naa fay xaar ñep ñi nga xamante ni képp koo xamante ne rek doomu Kër Massar wala boo képp koo xamante ne rek doomu Banlieue nga ndaxte tey prési moom bokk na si ñi nga xamante ni euh, ñoom lañ tuddee bis bi parce que loolu day firnee ni rek ndaxte dëkk boo fa nekkee rek ba nga bokk si ñi nga xamante ni lu fa xew ñu tuddee la ko rek c'est parce que am nga fa cër ah te cër boobu dañuy ñaan rek yàlla na yokk ndaxte euh, mooy li may wax rek doomu Pikine dañ leen xamee ci fula fayda ak jom ak gëm seen bopp kon tey bu ñëwee ba Kër Massar ba doomu waa Kër Massar yi lu ñu tuddee di ko lu ñu def di ko tuddee rek loolu yaa naa fierté la parce que tey man gën naa am fierté ah ndaxte tey su ma toogee doomu Pikine waa Kër Massar ah di ko tuddee seen bis rek fierté laa ci am te dañuy ñaan rek loolu yàlla na yokk ndaxte ñun xam nañ ni làmb ji nga dugg sax social bee ko jiitu mm-hmm. te loolu bëgg a dimbali xëy na euh, ñi nga xam te ñoom ñooy jeunesse bi la rek kon mbokk yi xarit yi ñi ñi ñi ñi ñi jaajëfal ñëpp ni ñuy def rek dañuy bàyyi rek ki nga xamante ne moom mooy président ah mu joxe mot de la fin bu fekkee aussi tam am na message boo xamante ni da nga ko bëgg a lancer surtout sax ndaw ñi wala ki nga xam ne moom mooy son son excellence monsieur le président de la République ñu bàyyi rek euh, nga jàllale message waaw dañuy dellu santaat yàlla bu baax a baax. di julliwaat ci sangu-sangu yi. Seydina Muhammad sallallahu alayhi di wax naan li may lancé mooy li xew fan yi ngor mu doon loo xamante ne tey lu ñuy ñaawlu la. Mm-hmm. ndax loolu rafetul ci image du Sénégal war nañu jéem a bàyyi diggante ay xeet ndax dëkk bu tàkk looloo ko taal te lu ñaaw la dafa am loo xamante ne nag mu nekkoon suñu identité muy Sénégal te loolu boo xoolee daf ñu commencé réer te mag ñi war a wax te dëkk ci gox yooyu nañu wax te la ñuy wax tamit na doon dëgg la ñuy wax tamit na bañ a doon wax joo xamante ne tey caméra da tiim. Mm-hmm. ñu wax pour apaiser mais bu caméra yi faye mm-hmm. ñu nekkaat ci suuf di xambaat xale yi. Mm-hmm. te loolu jar a bàyyi xel la. ndax am na ñoo am te ne mën nañuy wax pour jéem a xool muy apaiser bu caméra yi tàkkee. mais bu caméra yi fayee dañuy xambaat taal bi ci suuf nañu moytu loolu. te xam ne ñooñu ndawul réew mi lañu te ëllëgu réew. ndaw mhm. tey waruñu leen dugal ci loo xamante ne ay yàq tey boo xoolee li ñu def ku mel ni kër Farba Ngom loolu dafa ñaaw loolu rafetul mhm. te nit yaakaar naa nit ku baax ku ne ay yàq mhm. parce que rafetul du lu rafet ci image du Sénégal te lu rafet ñoom ci seeni image loolu ñaaw la te loolu wax dëgg yàlla dama koy ñaawlu lépp lu mën a xew te lépp ci waxtaan lay mujj nañ ko waxtaanee ba mu rafet ba ci nekk la nga lay sa àq ak sa yelef nga jot nga war ko jot nga jot ko moo gën ay yàq ay taal fii tey ku ci ñàkk sa bakkan tamit yaay perte ak mhm. say waa kër ñaari mhm. fan ñetti fan lañu lay jooy après jeex na ñu ñëw jaale si la jox fa ay jaxalu un million bakkan kenn mënu ko wecceek lenn kenn mënu mhm. ko wécceek lenn nañu àndaat ak suñu xel te dal te xam ne ñun ñoo bokk réew mi ñun ñoo mën a defar réew mi tey benn kenn du jóge fële di ñu defaral suñu réew ñun ñu fi dëkk ñu ñoo ko mën a defaral suñu bopp lan moo tax boo ay dëj xewee ñu demalante ngénte bu xewee ñu demalante ceet bu xewee ñu demalante mhm. te après bu yooyu weesoo ñu bëgg nekk ci ay affaire animosité loolu baaxul mhm. nañ delloo si waat xel yi te mhm. xam ne réew mi ñu ñoo ko mën a doxal ñun ndaw ñi nañu bàyyiwaat xel lu bëree bëree bëree bëri état bi tamit gën a gersuwaat ndaw ñi gën leen a bàyyiwaat xel gën am ci ñoom yërmande bu baax a baax. Mhm. su ko defee loolu bu ko defee rek yaakaar naa ni réew mi dina gën a jëm kanam. Mhm. dina gën a avancé. Mhm. ma leen nuyu bu baax di nuyu. mais kañ lañ mën a xaar mouvement bi nga xamante ni waxtaan nañ ci tey ñi lay seetaan lan la ñu war mën a xaar ci mouvement boobu ak ban date lañ lañ lañ nga nga war a def point de presse boobu ngay wax. waaw lool nag ñoo ngi ciy waxtaan ak encadrement bi yàggatul. yàggatul fan yi incha allahu rabbi lépp lu ci am di ngeen Modou Mbaye dina jokkoo ak yéen. dina leen ko wax bu soobee yàlla bu ñu ci àggee incha allahu rabbi dinañu toog ñu def benn point de presse foofu maa ngi nuyu bu baax waa jeune leader yi ma jël nuyoo bi di ko teg ci loxo Modou Fall. Mm-hmm. mu jox ñoom ak ñoom ñi ci kaw ak ñi ci suuf di nuy teg sama papa yi fi ñëwoon saa yi ñoom ñëpp maa ngi leen nuyu bu baax di leen jox seen wàccuwaay di nuyu ñoom naaj si Modou Mbaye Modou Mbaye moom maa ngi ko tuddee l'infatigable. Mm-hmm. ma koy moom ziaraat bu baax a baax a baax. Mm-hmm. koo xamante ne tey jii képp ku yeewoo ci banlieue bi. nga koo gersu. ak ku mën a doon nag képp ku fi nekk nga nekk fi leader di yeewu yeewu ci banlieue bi mhm. war nga ko gën ndax à chaque fois saa bu xëyee mu ngi xool luy loo développement boo xamante ne tey moo war a am ci banlieue bi mhm. loo xam ne day yokku banlieue bi loo xam ne day yokku jeunesse su banlieue bi mhm. mook soxna seet toog naaj si ñooñu wax dëgg yàlla war nañ leen gëstu te xam ne ay jàmbaar lañu te amuñu ci lenn luñ ci gañe amuñu ci lenn lenn lenn luñ ci gañe kon gars yi nañ leen bàyyiwaat xel bu baax baax a baax te xam ne

ya na tey euh, kàddu yi nga xamanteni ni na fi cadeau yu am am solo la te faral dañuy faral di wax ni nit ki balaa nga ko xam il faut nga fekk ko këram wala nga déglu ko mu wax mu wax la jaar-jaaram ndaxte bu ñu xoolee ci émission bi li ma ci gën a jàpp mooy jaar-jaar xamanteni ni wax na ko dina mën a permettre ndaw yi xam ni nit boo gëmee sa bopp rek gëm ne liggéey rek mooy maye dara jomb la te moom boo leen déggee ni mu waxee jaar-jaaram da ngay xam ni am na expérience àdduna ndaxte am na fu mu jaar te loolu dañ ko siy ñaanal rek ah yàlla na ko yàlla may gudd fan ak wér ndaxte dafa am ñoo xamante ni yàlla day def day def ñoom ay exemple la ñuy nekk ndaxte bu ñu waxee seen i jaar-jaar rek da ngay xam ne ñii tëdduñu tëdduñu nelaw ba alal fekk si leen mais dafa am fu ñu jaar ba yàlla def li mu def kon dañ koy ñaan rek loolu yàlla na am yàlla na barke ah combat yi nga xamante ni taxawal nga ko aussi tamit yàlla na si yàlla teg loxo ba mu réussir ndaxte dañuy faral di wax ni euh, genn golo ah gudd na waaye loo ci laal borom yëkku te yaanaa man ñun da nga bokk si suñu njaboot ndaxte yaanaa comme ni ñu koy waxee banlieue day sot mhm. banlieue zar day sot kon tey événement bi nga xamante ni tëgg nga ko mhm. yàlla na réussir yàlla nga bokk si promoteurs yi nga xamante ne tey Sénégal buñ bu buñ ciy tudd mhm. di nga bokk si ñuy ñi ñi njëkk a tudd ndaxte tey wax nga ko sa biir wax bu fekkee jeunesse bi rek moo la tax a jug kon lépp looy jug rek lépp looy def rek te

yaanaa bu ñu nee Kër Massar dinañ wax li salaam ndaxte doomu doomu Kër Massar la bi nga xamante ne yaanaa dina dina ñëw si show bi nga xamante ni tey da ànd ak ki nga xamante ne moom mooy Wally Seck tey yaa dama koy faral di wax euh, waa Kër Massar nañ koy bàyyi xel ndaxte talent yàlla dafay daf koy def si nit te yàlla def na ko ci moom kon li ñuy wax rek mooy nañ ko gën a jàppale gën ko ñaanal moom it aussi tamit fi Wally Seck egg mu egg fa ndaxte moom damay wax ni sagu banlieue bi la may jaajëfal bu baax a baax ah, sama chéri koko ñu koy wax ah, Aïcha Maguette ak ki nga xam ne moom mooy Abdou Aziz ak ki nga xamante ne moom mooy Karla di nuyu nag sama waa dëkk yëpp muy waa Ndomba waalo ah, waalo yëpp maa ngi leen nuy di leen jaar ak sama mbokk Bambey waa Pikine nag leen fàtte ndaxte lépp ñoom la dig daje beneen yoon ak seen benn émission euh, Café Weekend jaajëf